gën a kawe. a kawe. a kawe ou man maa war a kawe man maa war kawe man maay tegle chaise yi Merci beaucoup. Bonjour trois journalistes. Inch'Allah qui vont devoir poser des questions et nous allons lever la séance. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers pour me poser la question suivante. Est-ce vrai que vous êtes déchu de votre poste de député Je venais juste de manger d'ailleurs. Ma réponse a été en Wolof Yogumago, pour l'instant, ce qui veut dire je ne suis pas au courant pour l'instant. Pour votre juste information, je n'ai jamais écrit de lettre dure et automatiquement déchu de son mandat. Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas députés investis par la parce que la l'APR n'avait pas, pas de liste, mais par Beno Bokyakar. Et comme je l'ai dit, je ne souviens pas, ni par écrit, ni oralement, je ne l'ai absolument pas fait, je n'ai pas démissionné de la coalition. Par contre, euh, je pourrais vous expliquer assez rapidement les raisons de mon, de mon exclusion, qui est relativement d'ailleurs simple, euh, disons, à connaître, mais je vais aller à la source. Et la source n'est personne d'autre que le président Macky Donc vous voudrez bien prêter attention à ces propos. Donc vous avez bien reconnu la, voix du président Macky Sall. C'était évidemment dans, lorsque deux de, des députés voilà, qui euh, lui étaient proches ont été expulsés, comme il l'a dit. Eh monsieur le Président Macky Sall, comme vous l'avez dit, vous l'avez dit, c'était une première dans l'histoire politique africaine et du monde. Eh bien, Monsieur le Président, ce sera la deuxième fois en Afrique et dans le monde, par votre fait, qu'on expulse un député de l'Assemblée nationale juste en saisissant en catamini le bureau de l'Assemblée. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont voté contre cette violation flagrante. Notre démocratie, notre attachement aux valeurs de justice, de paix d'équité et de respect de l'autre. Dans ce combat, j'y laisserai mon dernier souffle s'il le faut. Car avec lui, je m'attends à tout. Je dis bien à tout. Et je suis préparé également à tout. Parce que je considère que la vie n'a de sens que si elle est vécue dans l'honneur et en accord avec ses propres convictions. Comme disait l'autre, être en accord avec soi le meilleur bulletin de santé qu'on pourrait avoir. L'honneur, le respect de la parole donnée. le respect de la Constitution. L'honneur, c'est également ne pas accepter de s'aplatir. Ce qu'on attendait président de la République en 2023, je devrais dire ce qu'on attendait du président Sall à 11 de son départ, c'est de pouvoir rassembler toutes les franges sociales, culturelles, ethniques, jeunes, femmes, hommes, qui composent dans leur diversité cette nation. On s'attendait à ce qu'il annonce son départ après février 2024. Qu'il appelle à une concertation avec tous les acteurs politiques sans exclure pour un renforcement de notre démocratie, de nos institutions, en vue, comme je l'ai dit, de son départ dans la paix et la stabilité du pays. C'est l'engagement en tout cas qu'il avait pris lorsqu'il a été porté à la tête de ce pays. C'est hélas la situation contraire que nous vivons. Jamais dans ce pays, on a atteint ce niveau de haine l'ai vu, je l'ai vécu à l'Assemblée nationale avec des camarades avec qui j'ai fait, comme j'ai dit, 5175 kilomètres. Même si nous ne de nous haïr. J'ai vécu cette haine tous les jours. Jamais dans ce pays nous de pouvoir, d'exclusion, de de celle du président Macky Sall, qui veut nous imposer qui serait, je le rappelle, une violation de la Constitution, ce socle de notre République. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le président Macky Sall compte nous imposer la force et rien que la force. Il compte imposer la force contre tous ceux qui se mettront en travers de son chemin vers le troisième mandat, que je rappelle, troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable. Dans sa coalition, tous ceux qui s'opposeront au troisième mandat du président Macky Sall seront exclus et traqués impitoyablement. Contre ses adversaires politiques, il utilisera tous les moyens possibles pour les anéantir. Et pourtant, si le président Abdoulaye Wade lui avait appliqué la même violence il ne serait pas aujourd'hui président du Sénégal. Il ne le serait pas. Il avait été convoqué au commissariat. Certains de ses camarades ici présents étaient avec lui. Le président Abdoulaye Wade aurait poursuivi cela, qu'il n'aurait pas été aujourd'hui à la tête de ce pays. C'est l'occasion de nous adresser solennellement à nos forces de sécurité, qui sont nos enfants, qui sont nos frères, nos maris, nos amis, nos voisins, pour leur dire qu'ils sont les fils et les filles du Sénégal, ce beau pays que nous partageons. Je voudrais m'adresser solennellement à eux pour leur dire qu'ils sont exclusivement au service du peuple sénégalais et pas au service des objectifs personnels du président Macky Sall. Et il en est de même pour tous les corps de l'État. notamment pour la justice. Comme maire, j'exhorte nos forces de sécurité à préserver la vie et la sécurité de tous nos concitoyens et en toutes circonstances. Je voudrais terminer par un appel, un appel vibrant à tous les démocrates de ce pays, les hommes, les femmes, les jeunes, mais également les personnes du troisième âge, les travailleurs, les pères de famille, les mères de famille, les intellectuels, les dirigeants d'entreprise, les artistes, la société civile et tous les politiciens épris de justice en vue d'une mobilisation massive autour d'une plateforme nationale de défense de la démocratie, en vue de préserver nos acquis démocratiques. sans présager de nos préoccupations, de nos ambitions. Cette plateforme devrait être ouverte à tous les démocrates qui veulent faire face à cette tentative d'utiliser la force et rien que la force telle que le prévoit le président Macky Sall. Ensemble, défendons notre patrimoine commun, défendons notre réputation et notre image de grande démocratie. pour ce qui me concerne, moi, je m'engage solennellement à me battre jusqu'à mon dernier souffle, et quoi qu'il m'en coûtera. Je vous Je, je je, je voudrais, je voudrais, jërëjëf am na solo ma waxtaan ci kàllaama bi nga xam ne moom la yépp ci suñu mbokk yi dégg muy wolof suma déggoon beneen kàllaama it doon naa ko tënk ci kàllaama googu information dafa am solo surtout di xaar ba ñu dal ba noppi ba yëpp dal ñu waxtaan ñu waxtaan ak askan euh, defe naa ne talaata la woon bii ñu génn Euh, ci booru 5 heures 46 ndax it booy joxe information da koy joxe ba mu mat su ma conseiller bi toog Basirou yoon daf ma yónnee message SMS ne ma waaw euh, danu laa génne assemblée national ma ne ko ah loolu day yëgu ko ñu ne tuuti nag information bi commencé génn ma wax leen nag ba ba léegi. gisagu ma lettre ndax yónnee naa tey assemblée ne leen waaw xanaa ku ngeen dàq di ngeen ko bind lettre nit boo ko licencié sax xanaa bokk di nga ko jox lettre bu ñu ko dañ ko ko notifié ni ñuy waxee ci tubaab jotagu ma mais li ma bëgg aussi ñu xam mooy binduma lettre démission du APR APR sax moom booy seet faluma woon ndax Benno Bokk Yaakaar ma far parce que nag aussi bu ñu wax dañuy jiital xam-xam APR amuloon liste Benno Bokk Yaakaar moo amoon liste ànd ak ay alliés ñoom it ñu def ci seen doole ñu ci bari na assemblée nationale ci liste bi waaw ñooñu koy xanaa bu dara di am ci ñoom lay jóge binduma leen newuma leen dama démissionné ñoom seen bopp sax woowuñu ma mënoon nañ jàpp sax ne waaw diw de dafa comme ni ko politicien Ismaïla Madior Fall wax parce que nee na dootul homme de droit ci laa loolu laa dégg léegi affaire politique la jàppoon naa ne nag yoon bu ñu ko nommé ministre de la justice moom ci yoon lay wax waaye moom jot na ko wax ne waaw de toute façon nii ak nii ak nii lañ koy defee waaye xam naa ne na mu leen ko tegtalee defeewuñu ko parce que lu mu bañ a bañ a doon politique am na tuuti ci droit loo xam ne dana ko dese mënoo dem ne waaw ñun waa APR euh, ñun ñoo ne nanu génne voilà soxna si APR ah, amu fa yoon ah, benn bokk yaakaar moo fa am boo doo gis benn dé violer aussi article 7 bu réglement intérieur dañu ne député bu démissionné ci sa parti dañu koy dañuy jël prendre prendre acte <laughs> démissionné wu kon nag lii nga xam ne jël nañ ko ci dogal du dara du jaay doole du leneen ci ku nag ku ko taxawal parce que président Macky Sall nag mënul wax ne taxawalu ko ndax lu mu sa yor ci politique maa ko jiite depuis 2012 mën naa koo lim di ko lim di ko lim ba ci tête de liste defal la 5175 kilomètres muy taw muy naaj voilà bi ñuy yëngal mbagg yi sax boobu daf ñoo neex parce que ay mélomane lañu voilà donc euh, mënut a wax quand même ne taxawaluñu ko waaye mel na ni. mel na ni su ma présence ci assemblée nationale gis Marine Le Pen nii saaga nit ñu ñuul ñi di saaga jullit yi moo ko gënal waaw loolu nag moom foog nu taxaw parce que nag président loo ama ama am doole nag ñun nag ay doomu aadama la tey ay gor ngi fi ba tey loo mën ak doole boo mënee am boo bëggee teg nit ñi injustice kenn du ko nangu man de duma ko nangu ba lu ma ciy fekk fekk ma ci moom su fekkee ne mu ngi déglu xam ne lii ma koy wax ne lu ma gëm la ndax dama ànd ak moom ci condition yoo xam ne ku amuloon fit doo ànd ak moom moom xam na ko lii mu def nag ba ñu ko defee ñaari député yi ca ba mu jógee assemblée nationale moom mooy audio bi ma dégloo bi ma bi ma teg ñu déglu ko sànq dafa jël dafa jël micro dem ci presse internationale ne leen lii kenn mus koo gis ci Sénégal wala ci àddina ab parti rek bind bureau de l'Assemblée nationale comme su fekkoon ne bureau assemblée nationale moo la fal ne dàq leen lii kenn su koo gis mooy audio bi ma wane noonu sànq ñu yegg si ba tey président ne nga musul am waaye lii mooy deuxième fois moo am fii te ci sa coobare la amee injustice boobu nag dinañu dem voilà ci fa koy contester waaye nag dinañu taxaw maa ngi gërëm aussi député yi nga xam ne ñoo ne bureau assemblée nationale te watewuñu ko watewuñu lii nga xam ne jaay doole kese la du leneen réew mi nag ci ay sart la tegu teguwul nag ci doole ndax bu doon doole rek président Macky Sall du fi nekk ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ñi nga xam ne dañu bañ ne duñu ko watee waaw di sant aussi leader politique yu bari nga xam ne dégg naa aussi seen intervention te yoon rek tax ñuy wax ba ci association femmes yi nga xam ne société civile def nañu aussi seen déclaration ñun ñoom ñépp ñu ngi leen di sant bu baax danaa ni ma ko waxee fexe ba dem ci yoon ndax dafa am solo aussi mais lii li mu firnde benn rek ci pàcc yi la ne président Macky Sall démocratie ak droit soxalatu ko loolu nag lu grave la ndax moom président makisal te ñu fekkee ko nag ndax bi ñuy ànd ak moom candidat Macky Sall bu fekkoon ne lii nga xam ne noonu lay bëgg a doxale ak ñi d'accordul ak moom bu fekkoon ne ak président Ablaye Wade noonu la doxalee ak moom ca ba mu créé partem ba mu ñëw ba ci élection kon heure bi du ko fekk ci bopp réew kon du am moom dañu ko convoqué commissariat ne dafa luubal 7 milliards président Abdoulaye Wade bu toppoon loolu kon tey du doon président de la république kon président dellool naar bi xoromam président da nga war a sigil démocratie sénégalaise démocratie sénégalaise moo la bàyyi ci bopp réew mi sénégalais yi wàccoog yow nag wàccoog yow waaye dafa amoon app dafa waroon app am app muy février deux mille fii nag li fi am ba des mooy ñi nga xam ne dañu tuddee seen bopp démocrate ñi gëm démocratie te àddina nag ci démocratie lay doxe ñoom ñépp nañu xam ne président Macky Sall doole la fi bëgg a toogee képp koo xam ne taxaw nga ci yoonu troisième mandat am bii muy wër dina la fexeel dina la traqué lu ne dana ko def a commencé nag ba ñu nekk ci coalition moom foofa lay tàmbalee ku ci génn ne d'accord ma da nga seet na muy jëflanteeg yow gaa yi gëm naa ne foofu ay goro a nga fa bare démocrate yi ak politiciens yi nga xam ne gëm nañu ne justice dafa am solo gëm nañu ne jaay doole du noonu la ñuy doxale réew nañu war a dañu war a ànd taxaw ci plateforme du seet kii ban ambition la am wala kële ban ambition la am kooku après la ndax démocratie bu amul ambition du ndax nag lii ñu fi gis président moom kenn bëgg a doon candidat loolu yi kenn su ko gis président ba ngay dem élection mais treize candidats ngeen woon Ablaye Wade bu fekkoon ne bu boobaa da doon tànn naan kii bëgguma ko day dama koy utal dossier kii bëgguma ko dama koy utal dossier kon day topp yam la doon toppee kon doo nekk candidat kon doo nekk président de la république kon président da nga war a fay naar bi xoromam delloo njukkal sénégalais yi delloo njukkal démocratie bu Sénégal li nga xam ne nag moom la ñuy xaar ci yow doon ko xaar waaye bëriwuñ ci yaakaar mooy nga dajale askanu Sénégal yépp waasowu Sénégal yépp dajale tarixa yépp dajale église dajale mag ndaw borom kër travailleur képp ku munti doon ne leen ah man day damay dem février laay pare nanu toog waxtaan nu nuy gën a dëgëralee sunu démocratie te doo ci beddi kenn doo beddi compte kenn bu ko defee kay ñëw di la wuutu te kooku nag sénégalais yi dong nga koy choisir ak sunu borom ndax nag <laughs> yàlla nee na ci ñi dégg bu baax a baax ñoom mbar gu nii <laughs> mooy jox mooy jox nguur nag ku ko soob jaarale ko nag ci électeurs yi fi ñu toll nag comme man li ma jàpp mooy loolu intéressé wul président Macky Sall li ko intéressé mooy jaay doole dana ko jaay ku ne nag ku ne dana la ko jaay ni mu ma ko jaayee man mii di xaar nag lu ne ci moom dara mënumaa bett waaye na xam nag xamal ne président noonu aussi laay jàmbaarloo ndax dëkk bi nag ay gor ba tey bi ay gor a ngi fi ay gor ba tey ñu ngi fi te benn bakkan bi rek la am nag donc amuñ ci ñaar wala ñett wala ñeent li ma gëm mooy nit da ngay sàmm sa ngor ba tëdd nit da am sa conviction di ci woon ak démocrate yëpp sénégalais yëpp mag ndaw jigéen xale travailleur borom kër pour ñu ànd doon benn say benn say pour défendre suñu démocratie bi ku am dina dinañu ko xool loolu amul problème parce que ba ñuy moom ba muy dem nekk candidat treize ni ma ko waxee treize euh, candidats la kon loolu du problème waaye ñi nga xam ne dañu war a taxawal démocratie

sàmm kaaraange Sénégal yi ma di leen woo ci loolu ñoom sénégalais yi lañu ñu fi nekkal nekkaluñu fi président Macky Sall en personne déedéet fexe ba sécurité boobu mu am kuy exercer sa droit te yoon may la ko ñu protéger la bañ a mukk ci àddina naan ñii suñu ay noon lañu ñu naan la tiréel ngay tiré mukk ci àddina mukk loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon naa toog fii wax leen ko ñoom ñëpp ndax ñoom nag ñoo yor suñu kaaraange bokk ci ñun jógewuñu feneen suñu ay doom lañu suñu ay rakk lañu suñu ay jarbaat lañu ku ñu ci def loolu dëppoowul ak yoon waroo koo def lii may wax nag it dama koy jagleel état yépp ak justice mu ñu xam ne fii état de droit la du état pour le président Macky Sall état de droit la loolu moo ko may tey mu nekk président de la république kon lépp képp koo xam ne kii dellu si waat si force de sécurité justice ak état ba en au complet ñu nekk au service des sénégalais bañ a nekk au service exclusif du président Macky kooku aussi di message boo xam ne bëgg naa ko woon joxe lii ci des mooy li ma wax ñu toog ñun ñépp waxtaan démocrate politiciens yi nga xam ne gëm nañu justice gëm nañu équité du ñu nangu rek par force damay néewal doole diw parce que àndul ak man parce que nag mën ngaa bañ a ma ko waxee jubóog nit waaye ba tey nga dawal élégance man président jigéenam la moom waaye tey ma defanteeg yow wala tey ma nangam tey ma bismillah bismillah amuñu dara luñ ci ragal dara fii nag fii nag jigéen yar na fi yàgg na fee taxaw moom xam na loolu yàgg na ca maam ya ca maam ya ndax dëkku bañ la nag aussi ci góor ci jigéen ci mag ba ci personne âgée yi defe naa président dafa xaw a fàtte Sénégal ndax nag ni ma ko waxee benn benn bakkan bi benn yoon lañ koy am da ngay di doon gor sàmm ko nag ba dee bu ko laajee ak taxaw di ci woon ak bépp démocrate loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko yëkkati terminé ko ci loolu mais man de ci suma wàllu bopp man Aminata Touré di ci jégalu nag ndax am naa ay doom ak i xarit ak i borom kër ci li may wax lii ma ne lu mu jar danaa ko ci def lii ma ne lu mu jar dinaa ko ci def président Macky bu fekkee ne nag doole nga ma bëgg a jaay waaw di nga ma dóor ba ma tëdd wala ba ñu dee ñeneen ñëw jéggi ma ñeneen ñëw jéggi ma jàkkaarloog yow noonu lay demee di ci woon ak toute la jeunesse ndax démocratie moom dañu koy défendre jigéen ñi ndax li mu def nag bu fekkee ne association femmes yi dañu réagir parce que jigéen la ko def waaw gentleman yi ci dëkk bi yëpp vraiment merci ndax ay gentleman a ngi fi aussi waaye ñu gis benn soxna rek ne tey ma waaw def la noonu ñu jàmbaar loo loolu loolu moo doon kàddu gi ñu ngi gërëm ñu ngi sant dear friends especially those from the diaspora or friends who don't speak neither French nor Wolof I like to say a few words actually to denounce my exclusion from the parliament based on nothing an unfull fired because I was properly fired. And uh, of course, upon the request of President Macky Sall. This is an attack on democracy. And I am determined, I am determined to fight along with all Democrats of this country to make sure that the image of our country, the image of the Senegalese democracy that is respected all over the world will prevail. I call upon President Macky to respect the constitution that he campaigned for in He knows that he's not allowed to run for a third time he must respect his word, he must respect democracy. Because the tension in this country, all the issues that you're hearing across media, have just one source, one cause. His unlawful and ethically unacceptable mm-hmm. attempt to run for a third time. I call upon all the Democrats of this country to get together, to sit together, to create a large platform, to stand for democracy, to stand for human rights. I call upon our security forces to remember that they are not security forces for President Macky Sall, they are security forces for the people of Senegal. And I call upon them to refrain from violence, to preserve life, to preserve peace. And I call upon all Democrats to get together, to stand as one, and to defend our democracy. Thank you for listening. Yes. Merci beaucoup, Madame la Présidente, par rapport à cette déclaration liminaire en wolof et en français, mais également en anglais. Voilà, s'il y a deux à trois journalistes qui voulaient poser des questions, deux à trois, prenons le d'abord. Allez-y. Vous présentez votre organe également.